mbokk yi tey jii li tax ñu ñëw fii nii moom moo di euh, bés bi nga xamante ni mbooleem maam jaar yi nga xam ne ñooy jàngee ca daara maam jaar yi nekkee ci Poroxaan ginnaaw buñ jàngee ba tëj maanaam bu seen école tëjee dañuy ñëw ñoom ñëpp dajee fii nga xam ne moom moo di ci Daaru Minaan ci kanamu sëriñ bi ñu ñaanal leen waxtaan ak ñoom ñi nga xam ne ñoo di seeni waajur mën leen a jël si ngir ñu mën a jël seen i vacances ba keroog ñuy ubbiwaat loolee nekk liggéey bu am solo boo xamante ni mboolem jëwriñ yi nga xam ne ñoo yor liggéey daara maam jaara saa su ne ñu ci taxaw teem waaye lu ko jiitu euh, ni ki euh, ñaari fan yi nga xam ne moom lañ génn euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo di fanweer ak ñaar ci ay maam jaar yoo xam ne bàyyeekoon nañ ci daara ji ñëw fii nii ci daar mi nan jàkkaarloo commission bi nga xam ne ñoom ñooy saytu maam jaar yooyu seen jàngu alxuraan fu mu toll ndax wér na wala wérut ginnaaw nag biñ ko saytoo fanweer ak ñaar ci maam jaar ñoom mokkal ren ji ci at 2019 bi tey jii nag euh, bi maam jaare yi bàyyi ko Porokhane ñëw fii nii gis ngeen leen mbooloo mi suñu ginnaaw ci seen teewaay ci lañ jël euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo jot a ñu jox leen seen i lijaasa waa jox leen ay neexal yoo xamante ni lépp mu ngi bàyyeekoo ci euh, loxo yi ki nga xamante ni moo jiite fondation Maam Jaara bi di ki nga xam ne moo di Serigne Issakha Mbacké moom Serigne Bassirou ànd koog mboolem kilifa yi ñoom fondation Maam Jaara bi ñu liggéey liggéey ba am solo jëm ci daara Maam Jaara ji ku ne gis na parrainage bi taxawaay bi nga xam ne Serigne Issakha Mbacke mu ngi ko ci def waaye ànd koo mboolem kilifa yi waaye liggéey bu am solo bi nga xam ne mbooleem jëwri yi nga xam ne nekk nañ ci daara Maam Jaara ya ak jàngalekat yi ñu ko fay def euh, soxna Maam Awa Dem directrice des études ak ki nga xamante ni moom moo di euh, Serigne Abdoulaye Diakhoumpa ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci daara ja mbokki téléspectateurs yi tey yi ñu fas yéene ànd ak yéen dëgtal leen lépp loo xamante ni mooy bàyyi ko fii nii ci bés bi nga xam ne maam jaare dajee nañ fii di euh, doon fin d'année waaye tamit ñu remettrale ay diplôme ñi nga xam ne jot nañoo mokkal alxuraan ci atum 2019 bi ñu fas yéene ànd ci euh, remise de diplôme yooyu ak euh, li nga xam ne moo di neexal yi waaye it yi nga xam ne moom moo fiy jibee fii nii ci Touba Darou Minane tey yemboo ko jeudi 1er août 2019. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله sadaqallahul aziim alhamdulillahi alladi xalaqal insaana wa allamahu wassalaatu wassalaamu ala afdalil xalq wa ala alihi wa sahbihi assalaamu aleykum wa rahmatullah sunu waxtaanu tey dana jëm ci ñaari tomb yu am solo te mooy xam-xam ak teggin xam-xam mooy ndonal yonent yi alayhimu ñoom bàyyi wunu fi alal li nu fi bàyyi mooy xam-xam yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ni al ulamaau warasatul ambiyaa boroom xam-xam yi ñoo wootu yonent yi alayhimu xam-xam luy des la te alal day jeex yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ida maata al insaanu qataa amaluhu illa min thalathin sadaqatin jaariyatin aw ilmu yuntafacu bihi aw waladin saalixin yadcu lahu te mooy nit bu faatoo léppam bam des ñett muy ab sarax bum fi bàyyi woon wala lu mel ni wala banteen ak xam-xam bu mu fi bàyyi ñu ciy jariñu ak doom ju baax ju koy ñaanal xam-xam dafay àggale nit daraja yu kawe-kawe sunu boroom subhaanahu wa taala wax na ni shahida allahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist mu ne yàlla seede na moom rekk mooy yàlla ak malaayika ak boroom xam-xam yi waxaat ni tam innama yaxsha ma ragal ci jaam yi mooy xam-xam yi yonent bi sallallahu alayhi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala allahu lahu tariqan ila al janna te mooy ku xam-xam yàlla yombalal ko yoonu aljanna sunu boroom subhaanahu wa taala wax na ni yarfau allahu alladina aamanu minkum walladina utul ilma darajat dana yëkkati ñi gëm ci yéen ak boroom xam-xam yi xam-xam ak leer la buy niital nit aw yoonam mu ne fu sa topp yàlla ci dudul xam-xam sëriñ tuuba radiyallahu anhu wax na ni يا أيها الشبان إن خفتم خجل فقدموا تعلما على عمل yéen ndaw ñi bu ngeen ragalee gàcce ngeen xam lu jiitu ngeen di jëf waxaat ni fal ilmu xayru ma bihi izdaana alfataa li annahu yukrihimu xaytu ataa mu ne xam-xam moo gën lépp lu nit di tarloo ndax da kay teral fu mën a nekk waxaat ni ومن تجرد لطاعة الجليل قبل تعلم فغمر لا نبيل ku jug di topp yàlla lu jiitu muy gam ab dof la bu xelluwul teggin nag ponk bu am solo mooy taaral xam-xam ndax xam-xam du jariñ ci lu dul teggin nit bu réeree te ami teggin teggin ya rëbb bu réer ga Sëriñ Tuuba radiyallahu anhu wax na ni أوصيكم بالعلم والأعمال مع التأدب على الكمال moo ngi ñuy dénk foofu ni ñu boole xam-xam ak teggin mu wax ni maa ngi leen di dénk xam-xam ak jëfe te mu ànd ak i teggin teggin nag mooy jëfandikoo lépp luy gërëm ci ay wax ak i jëf nit lu ay tegginam di kër di gën kawe dayoom di gën a dolliku ay mbiram di yëkkatiku moo tax boroom xam-xam yi wax ci lu bari ku mel ne sayidina umar radiyallahu anhu wax na ne ta'addabu thumma ta'allamu mu ne yar leen seen doom te jàngal leen ibnu abbas tam anhu wax na ne utlubil adaba fa innahu ziyadatun fil afli wa dalilun ala al wa muannisun fi lwaxdati wa saaxibun fi lgurbati wa maalun inda alqillati utilité gin yokkum xel ak di wéetal ci boo wéetee di àndandoo ci boo tumuranke di alal ci boo néewle sëriñ tuuba radiyallahu anhu nee taaddabu fi alanin wa sirrin ma al aliyi wa xolqihi bil birri mu ne am leen teggin seen digg ak seen boroom ak mbindéef yi ci lu feeñ ak lu nëbbu dal ni kuy sàkku tuub yàlla ci lu dul teggin du jariñu yéel na ci bépp jullit mu tegginu ci mboolem ay mbiram te def ko yére bu muy sol ndax amul lu gën a mën a nëbbu ay ayib lu mel ne teggin ak jikko ju rafet ku yar sa doom si ak ndawam su màggee noppal ko waaye jur yi bàyyi luñ fi doomi lu gën ay teggin sëriñ tuuba tënkal nanu ay teggin al adaba adaba thumma al adaba wa huwa an tabarru umman wa abba wal amma wal ammata wal axal kabir wal cheikha inna cheikha bil birri jadir nee na teggin mooy nga baax ci sa yaay ak sa baay ak sa baay ak sa bàjjan ak sa mbokk ak kilifa te kilifa googu moo ca gën a yell ku la mag nga teral ko ku la féete ndaw nga yërëm ko commencé ak yow nga def ko bopp si kàttal teggin mooy gën gi koom ci àddina ak al yal na nu yàlla wërsëgal xam-xam ak teggin te dolli xéewalam ak musalam ci ki wax ne adabani rabbiya wa ahsana ta'dibi mu ne yàlla yar na ma te rafetal sama bi yar te mooy sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci turu sëriñ Isaaxa tàmbale ko ci direction bi nekk ca daaray maam jaara poroxaan jaxate jiite leen ak soxna maam awa dem nuyu di leen dalal jàmm di leen siyaara di nuyu jàngalekat yi ñoom ñi nga xam ne seen ab liggéey fa tabaarakallaahu moo waral li lépp ñoom ñëpp boroom defal leen ndam dolli leen ndam sax la ñuy wax ndax am nañu ndam ba nopp ndax seen liggéey la boo xam ne sunu boroom moo ci def tawféexam waaye yombul ñoom ñépp góor ak jigéen noo ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen ñaanal ak waay juri maam jaare yi daayira yi biir réew nga xam ne ñoom ci ndigalul sëriñ bi ay jàngalekati alquran lañu di ay haafis nekk fii ci dëkk bi ba noppi itam lëkkaloog waa bi ànd ak ñoom di leen traité di leen teeru di ànd ñoom liggéey bi ko àndal moo dem taat bi yi kon toggal ma volteur yi nga xam ne ñoom ñoo leen jëli di leen yóbbu ñoo leen di beral ab siyaar soxna am Mbakke bokk ci ñu maam jaare yi ak ñu ko bokkal soxna Aminta Sill ak bokk yépp noo ngi leen di nuyu di leen siyaar siyaar presse bi nga xam ne ñoom saa yu ñu nekkee ci tàmbali liggéey di yëgle di yaatal ba liggéey bi ñu daat ak teew nii fas yéene lépp fi ruuse ñu tasaarewaat ko ñoom itam noo ngi leen di sant di ci jiital RTS télévision bi nga xam ne réew mi ko bokk Lamp Fall TV Touba FM site inter yi nga xam ne ñoom lañu àndal bokk na ci télévision Al Mouridiya bu dee site internet yi ak minan salaamiya ko ba léegi am noo ngi rafetlu sunu teewaay di leen ñaanal sunu borom barki Sëriñ Tuubaa mooy moom lañu waxoon ne dañu koy tàmbalee kàddu bopp ma ko waxee sëriñ maa ngi lay seedeel cant koo xam ne basiru laa léegi ma ci ay jëwri ñi ma ko àndal yoo xam ne at mu jot ma bëgg bi ñu di saa yu ñu jugee woo ma loolu dana ma sawarloo ci liggéey bi ñoom maa ngi leen di beral ak cant tàmbale ko ci bureau bii nga xam ne ñoo yore liggéey bi te Serigne Moustahine jiite leen ak sëñ Moustapha Kane ak ñi ñu ko seqal ñoom ñëpp maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di ñaanal